boo jógee sa kër ni damay dem Njaasaan yaakaar naa ni dafa am lu la fa yóbbu la moo la fa yóbbu mooy tibbi barke ak sangu ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon sëriñ bi mi ngi bàyyi loo xel képp kuy ñëw Njaasaan xaqiqa moo lay moy ñëw yeesal sa tarbiyu sa digënté ak sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nak lolu bu ci yar ak teggin joggé dara do ci des kon li sëriñ bi di ñaan moy ñëpp nañu ànd ak yar ak teggin ndax ilayhi yas'adu al kalimu at-tayyib wal amalu as-salih yarfauhu yar ak teggin bu amé ci comportement ci doxalin lépp day daal di mujj nekk si jàmm ndax wasalaamu ma man ittaba al huda waaye jógee sa ni ko monsieur le gouverneur waxee ni damay dem Ndiassane Cheikh Kounta kat ay yaakaar damay dem ci leeru Seydina Mohamed yor loo xam ne diine nangu ko di dox doxalin boo xam ne diine nangu ko jëfe comportement boo xam ne si ni diine nangu ko kooku nga ne Ndiassane ngay dem da ngay perte sa temps toogoon sa kër moo ko gën te sëriñ bi ren mu choisir thème bu am solo ci temu mu gàmmu ginnaaw bi ci waxtaanee ak comité scientifique ci njiital Mouhamed Babou mooy wa taawanu alal birri wal ak sincérité ak ragal yàlla te maytoo dimbalante yàlla ak lu neexul yàlla ndax buy ñu gàmm tàggu ma ni ma damay dem njaasaan yor lu ñuy tere ma gis ko kon dimbaliwu ma la ma ànd ak yow ci wàllu gàmm ci loo xam ne jëf yi safaan moo fa yóbbu kon man ak yow dimbalante wuñu kon taawanu alal birri wa taqwa buñ ci jamee rek lu bare bare bare dina baax kon daal sëriñ bi mi ngi woote eh, jàmm daw ndànk surtout transporteur bi ndax yépp téeméeri nit wala juróom-ñaar fukki nit yamale leen ci àll bi dañ doon dem di wuti yiw waxuma la ñaaw téef boobu waxuma la jéey yooyu waaye responsabilité bu diisee noonu sa diggante ak sa borom nit war na ko ragal waaye nag responsabilité bu diisee noonu sa diggante ak àdduna ndax am na sacrifice boo xam ne boo ko defee ay bakkanu doomu aadama dootoo tranquille ba kiraat ngay dee sa àdduna yàqu na yaxeet ña nekkoon ci oto ba amoon ay responsabilité yu toog di leen xaar njaboot bi leen di xaar te defuñu waxuñu nga yemale leen ci tali bi sa ñàkk yar ak ci sa sago kooku wala ayaas billaay yàlla na ci yàlla musal te li monsieur le gouverneur wax bu ñu delloo si njàngale nu mag ñi delluwaat ci li tax ñu sos njaasaan delluwaat li tax ñu sos kër diine yi xam lan mooy devoiru taalibe kon lépp dana baax kon taalibe dafa war a tënku ci njàngale nu kër gëm bokk ndax tariqatul qaadiriya mazhab la comme ni mazahib yi amee rek delluwaay la tariqatuna haza nag mabniyatun ala alkitab wa sunna dañ koo tabax ci téere muy alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi sallam ñaar yooyu lépp lu leen wuute bokkoo ci tarixatul xaadar kon nit ki li muy woote woo da koo war a nuru nit nag boo nee taalibi nga te amoo benn doxalinu taalibi kooku yaa nax sa bopp nekki woon leneen te bañ a nekk sa moo gën ndax nit du perte temps ndax taasi sunnata nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tazharu xubbahu هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادق لا أطعت إن المحب للمحب مطيع نيت كي بوني دا ماي دوند سنة صلى الله عليه وسلم دا ما بغ يانتي با دا ماي دم غامو نياسان في فونو تودي يانتي صلى الله عليه وسلم دا فيتاسو مو جارال لا جوخي سي الله با بري دي موي سنام دا دوخلو سنام دوخلو لن سي نيانغالينام كوكو دا غاي ناخ سا بوب باي وون كو سا موغل دا لولو امول سانس كون مونسيور لي غوفرنور euh serigne bañ sante bu baakha baax di gën a soññee nag ci njaasaan di gën a soññee ci njaasaan ndax li tax muy soññee ci njaasaan mooy njaasaan fondé nañ ko 1883 muy capitale xaadiriya fii ci réew mi ndànk kajoor gi cheikh bu Mouhamed Kunta ganee àdduna wajuram cheikh bu Naama Kunta ñëw fi en 1800 sañ ci ndànk kajoor en 1909 je pense que ne amul dëkk diine boo xam ne si ni njëkk na ko waaye cheikh bu Mouhamed Kunta moom sañ ci njaasaan 1883 bàyyi ay magam ndànk ndànk di euh, masqatu ras ahlul kunti yi muy capitalu ahlul kunti yi mooy ndànk ndax képp ku sant kunta fa nga jógee mais sur le plan tariqa ak wàllu doxalin ak wàllu administration ak wàllu nekkin Njaasaan mooy capitalu Qaadiriya loolu ñu gën koo bàyyi xel ngir euh, euh, soxla yi bari na comme ni nga ko waxee am na yoo xam ne si nii du wax yi jotaayu mbooloo am na yoo xam ne itam du exprès de besoin ci gàmmu waaye seen taxawaay bi nga xamante si ni moom lañ leen soxlaa ci li ñuy tuddee ak CLD ak CRD sëriñ bi mi ngi koy rafetlu seen taxawaay di ñaan yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. suñu ziar ñun administration yëpp parce que bu ma ne ñun rek yóbbaale naa di wax mbégte bi ñu am toogaat ak yéen waajal gàmmu yi ma ñëw ñu installé ma ma tombé ci gàmmu yi dama toogee keroog yéen nee naa may fii fii Thiès kese la dafa bëri ay gàmmu mais alhamdulilah gis naa ni euh, njariñ la te li am solo mooy tombé ci war koo mën a mu baax loolu mooy particularité te loolu mooy suñu yéene bu ma ne man nag jàpp leen ne rek ñu may liggéeyal ñëpp ci lañ bokk kon suñu yéene mooy fexe ba li ñu sas kilifa yi ñu féete kaw teg ko depuis président de la république danañ ci taxaw ba mët danañ ko ànd ak yéen ba mët sëkk ñun duñu créer lu bees dañuy jël li ngeen ñu wax jéem ko defaraat ba mu gën a jekk ñu bokk ko ngir gàmm gi tegu ci yoon loolu mooy suñu yéene mooy seen yéene kon boog foog naa ne ñoo bokk jëmukaay li ci des nag mooy ñu fexe ba yi nga xam ne moom la service chef de service yi jël ñu gàll ko seen loos te ñoom ñu ni mën nañ ko àttan nañ ko te nañ ko def dañ leen si xool day ci ànd ak ñoom ku ci am gàllankoor rek dina ci waxtaan ak préfet ñu xool naka la ñuy yëkkatee yeneen i kàddu yeneen i façon yeneen doxalin ba yëf yi ñu dabu ko balaa muy soxla kon incha allah rabbi yaakaar naa ni dara du sooxe li ci sooxee nag dañuy faral di wax jaam ak pexem yàlla ak dogalam waaye ñaan gane gay nangu mu ngi sosu lool ci yéene bi nga xamante mooy yéene bu rafet te suñu yéene rafet na ci bi suñu yéene rafet na ci njaasaan te suñu yéene mooy njaasaan yi jëm ci kanam yokk bu baax a baax kon dinañ ci taxaw bu baax na ngeen ko bëggee dinañ ci taxaw ci nañ ko daan defee waaye nu gën a baax nu gën a jàpp lépp lu ñu deful nag rëcc rëcc lay doon waaye bu dee engagement bu ñu jëloon mën nañ ko waaye rëcc rëcc yenn saa yi moom waaye jamono soppeeku ba nga xamante ni xëy na lañu ñu fogoon demeewul noonu bu ñu demee sur le waaye lu mu ci mënti doon danañ ko rattrapé waxtaan ak yéen ba mu jàpp ñun duñ ci yokk leen lu ngeen ñu yokk nag buñ ko mënee def ñu xool mu baax dañ ko def kon gàmmu gi suñu gàmmu la ñun ñëpp sant bu baax chef de service yi nga xam ne ñoo ci taxaw at mu ne bu gàmmu teroo ñu xam nañ lañu war a def te jël nañ seen matuwaay yàgg ndax kenn ku ci nekk ci wàll wi nga nekk bëgg nga raw sa morom wala bëgg nga jëmmal sa service ba la nga sasoo nga mën ko kon ñoom dañ leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax ndax ñaari bari na loo xamante ni ñu koy réussir muy man di préfet wala sous préfet ñoom ñii bu ñu laxasaayu woon du sotti kon dañ leen di delloo ngërëm li te di leen ñaaxaat ñu gën a dem parce que li ci des bariwul xëy na liggéey bi metti na jafe-jafe yi bari na waaye nag ci seen xarañteef mën ngeen ko dékku te attan ngeen ko kon loolu lañ leen di xaar ne leen nag nañ ci ànd dem ci ngir ñii am lu ñu yaakaar ci ñun ñu matal ko te incha allah dina mat soobee yàlla léegi nag li ci des mooy fàtte mbiru jaam la bu amee ngeen fàttali ñu xool luñ koy defee préfet jege na leen su préfet jege na leen te bu weeru gàmmu téléphone sous préfet téléphone préfet ba ci gouverneur yéen a ko moom yéen a ko moom donc bu leen ñu ñëw ci dara xëy na rajo wuñu fépp waaye lu ngeen ñu wax ñu déglu bu soobee yàlla kon nit ñu ngi leen di delloo waat loolu te dee wax ni sëñ bi na dalal xelam taalibe yi nañ dalal seen xel danañ ci am li ñu bëggoon nag mooy waxtaan ak askan wi ñëw euh, Ndiassane ndax euh, li ñu gis ci jamono Sénégal dafa bari muy accident yi accident yi nag jëfu doomu aadama la rek yenn saa yi nit ñi natt ko sax fu mu yeggul yooyu yëpp wut prétexte la rek mais bu ñëpp yaroo rek jàmm am léegi yaradiku gi nag ki ci kaw tali bi faaw ñu xeex ko dañuy wax ne ku yaradiku nag dañ ko teg ci yoon buñ ko tegee ci yoon amaana ñëpp yar parce que ku jóg di gàmmu ji yow yow yóbbu woo sa bopp da nga ay doomu aadama sàggan nag ba doomu aadama yooyu yëpp wàcc liggéey te yegguñu fa ñu jëm responsabilité boobu nañ ko teg sa kaw la ca war ñu def la ko foog naa ni nag il faut ñu changer doxalin muy force de défense et de sécurité autorité administrative ñun ñëpp sunu taxawaay lañ koy defaraat ndax li ñu gis nii ba ñuy wax ba léegi taxul mu soppi lu wax fajul nag jëf a koy faj te de dañ jëf ba yëf yi soppeeku waaye ñu ñaan leen yéen it ci xutba yi ci jumaa yi ci jàkka yi waaye ci waxtaan yi ñuy def ci gàmm gi comité scientifique bi lépp njàmbaas leen ci sécurité routière ngir mu dellu si waat ci xelu askan wi dellu si si xelu taalibe yi am na juróomi minute yoo xam ne bu ko sëñ bi àddoo rek moo raw fukki émission kon foog naa ne ci faut sëñ bi waxaat ci loolu dimbale ci loolu ngir askan wi gën a ñoŋ askan wi gën a nekk si jàmm accident yi gën a wàññeeku loolu mooy suñu yitte accident yi na wàññeeku te mën na wàññeeku te dina wàññeek ndax ñun dañu ko def suñ dañ liñ si xat suñu tànk bu soobee yàlla donc ñu fàttaliwaat ak ne mbooloo mi dañuy dem di fekk am na nag yu ngeen fi junj léegi kon sañoon mu demee nii demeewul nii loolu lu ñu waxtaanee la xëy na ci biir waxtaanu biir néeg mën nañ ko mottali loolu moom du ñu ne déet du ñu ne waaw waaye bu ñu waxtaanee jébbal ko suñuy kilifa ñoom ñu xool aussi nu ñu ci jàppee ba yëpp jàpp foog naa ni loolu moom mën na nekk li ci des nag mooy kenn ku nekk li ci des soriwul waaye nañu xam ne rek gàmmu gi euh, ñaari fan ci des nañ ko jàppee noonu pour baral tànk yi gaawal tànk yi li danañ fa ñëw xool xëy na lan moo sooxee mottali ko waaye ku si nekk rek am na foo mën a jàpp ba gàmmu gi baax maire yeeg élus territoriaux yi seen wàllu nañ koy matal ñu ngi koy matal bu baax saa su nee ma wax leen ne man bis bu ma nekkee maire fas ma ko yéene nekk nag parce que ma doon maire mais li ma bàyyi sama xel mooy bu ma taxawaatee ci kanamu askan mi bëggal dagaanaat seen baat am na lu ma tënkoon ak ñoom ndax ànd bi àndu nawle la war a doon àndu nawle da ngay jëf li nga digg man ma jëf li ma digg ak yow ñu tase ci njëriñu askan bi bis bu àndu nawle boobu daggee ab mer wor ta taxawat ci kanam askar yi nan len damay dagan sen ba su boba ñaare yata la fay fekk wala ñu jël ci gendarmerie jël ci la kon nañu fexé ba rek askar yi def ko suñu yitté askan yi def ko suñu yitté ba lepp lu seen soxla ñu mën ci taxaw di ngeen taxaw yi gàmm yi nonu gis nañ ko parce que dafa bok ci seen i prérogative li ci des nak moy ñun ñëpp ñu laxasaayu rek taxawat defaraat togay bi bu togay bi jegee rek ñu góorgóorlu lepp dina bax ñu delu wat ci message bi ñi lancer rek pour jàmm am waaye pour sécurité ci té lolu ñi di taskatu xabar yi am ngeen ci walu yeen bu ngeen waxul sax nee leen image ngeen di génne rek ban na indi manam xalaat bu rafet ci nit ñi ba changer doxali il faut ñu wat ci citoyenneté wat ci suñu aada ak suñuy cosaan ñu xamné amna am mag ñi togué woon bis bu bëggé soppi do togué ñu mag ci suñu ñu bop rek ci jafé jafé li ñi def kon nañu fexé ba ñu mag yi ñu ray ci lu bari waye yeen taskatu xabar yi ngeen continuer di wax di wane di wax di wane jëf yu ñaaw yi dee leen ko feeñal jëf yu rafet yi dee leen ko feeñal ñu aj ko ca kaw waaye comportement yi nga xam ne moo xew si tali bi xew si askan wi ñun ñëpp ñooy booloo lijjanti ko mu féete boor amul dara lu ñu të waaye nag dafa fekk ni ñëpp jàpp ñu te ndox yi nu ndaw la rek bu ñëpp jàppee mu gaaw waaye bu ñëpp jàpp dana yegg waaye day yéex a yegg kon nañ fexe ba ñëpp jàpp buy taskatu xabaar ak ku mu mën a doon ñu ànd ci liggéey bi te xam ne luñ ci def rek yàlla fay ñu en tout cas ci kàddu yooyu laa bëggoon a sant ñëpp gërëm ñëpp di gërëm bu baax la xalif général des préfets ndax euh, yàgguma fi mais këru diine bu ma dem kàddu gi benn la dara soppeekuwul kon moom ñëw moom mu defaraat toogaayam te moom te ni boolewuñu lu jiitu te lañu xamante kon nii la ma sama te it loolu la ñu sàkku ci administration territoriale maanaam askan wi boo jiitee da ngay bari foo leen tane yërëm leen foofu ndax bis bu la soxlaa yëg li am solo mooy li ko may lii nag mooy dégg-dégg la am l'écoute ubbeeku mooy accessibilité te loolu la ñuy laaj sous-préfet moom lañ koy laaj man mi moom lañ ma sas donc bu bu ngeen demee yéen ba seede ko ma dem ci beneen kër bërki dee bu ñu ko ma demaat feneen ñu seede ko ah bukki de ne woon na la ñëpp waxee dëgg waaye biit li ñëpp xalaat dëgg la kon dañuy santaat euh, préfet bu ngeen ko santee dëgg-dëgg mën ngeen sant parce que euh, mom ñi ko wóolu ba teg ko fi xam nañu kon li tax ñu teg ko ci këru parce que këru diiné du ko nekk lañ fay parce que dañuy faral di wax né mayé kala neex waye denkané ko wolu ndax délo ba tax kon mom mi lolu mo né ci mom kon sous préfet it kon ñu gëna ñaax gëna japp man nak daaw ma dem fu dul ndam kon fi ndam la wara a doon ci kaw nak ngeen japp ci bu gën ma sétané mu ñaaw bu ngeen ci jàppee chef de service yi jàpp si ñuy jàpp si daam ci kanam ak Thiès jëm ci kanam bépp këru diine bu nekk biir dafa région de ci kanam nga jëm bu soobee Yàlla